góor ñi li tax ñuy tàkk ñaari soxna jëpp ñaar bu ñeent loolu moom dafa nekk loo xam ne lu dagan la waaye am na ñoo xam ne dañ koy def ngir toppandoo am ñoo xam ne dañ koy def ngir rëy am ñoo xam ne dañ koy def ngir maanaam ni ko diine ji santaane waaw ndax ñeent moom dafa dagan waaye dafa digle tamit balaa nga koy def na ko mën na nga ko euh, nga bëgg ko tamit ñett yooyu ñoo ciy ànd bëgg mën attan ndax mbir mi dégg mën nga bëgg te mën mën nga attan te doo bëgg mën nga bëgg mën te doo attan yooyu da cee nekk. waaw takk ñaar ak ñett moom yoon la de boo ko manee waaye ñu bëri ñoo ngi koy def mënuñu ko. ñu bëri ñu ngi koy def mënuñu ko am na ci ñoo xam ne moom ñu takk ku yorut dañ lay xool ba nga xam ne yaa ngi xëy ñu soog lay takk ñu xoolee ba xam ne yoroo dara duñu la takk kon xam nga ni man amul foofu wala yàlla tax amatul foofu. ñi ko mën di ko def ñi mën a takk soxna dem takkaat keneen ñoo xëy na mën nañ ko waaye ñii ko mën ba pare te defuñu ko di doxanaat ci suuf ñooñu moom loolu na xam nañ ne sunu borom gërëmu ko ñu baax ñi gërëmuñ ko te nit ku baax moom lu yàlla gërëmut yonante gërëmu ko nit ku baax gërëmu ko loolu war nga ko moytu te doxaan moom ku ne xam na li ci nekk xëy na baatu olof niñ ko waxee mooy dox ànd dox ànd nag maanaam ba muy sosu maanaam ku bëgg soxna moo taxoon ñu def ko ci kilifa yi ngeen dox àndi seeti sakku ji kër sakku ji njaboot ngir liggéeyal sunu borom waa góor goo xam ne moom daa ragal jabaram joru dugg su man ne su ma doxaanee damay bañ góor ñi moom ba doxaan moom moo leen gënal téeméeri yoon ñu lijjanti ko ca kër ga ke ci mbedd mi da leen di gënal ñu am 1000 francs nar ko yóbbul ko ca kër ga yóbbul ko ko ca mbedd ma da leen di gënal loolu moo tax booy ànd ak góor te ñemewul jabaram bu yeboo nga bàyyi ko waaw góor ñi takkatuñu bu ko jigéen ñi waxee xëy na am na lu tax ñu wax ko waaye jigéen ñi tamit dañuy gis li leen takk duñ nangu ndax jigéen ñi lenn dafa am ci ñoom fu mu ne nii li ñuy xeecc léegi mooy jëkkër ju amul alal mënuma tàkk te kuy sakku ci moom lu ne mën na la faa fekk boo ko muñee rek maanaam alal mën na ñëw euh, ak yeneen tawfeex yoo xam ne yaakaaroo ko woon mën na ñëw ndax bi ngay dem euh, da nga war a xalaat boo xam ne bi ngay gane si àddina indi dara bi ngay gane si àddina indaale woo dara comme indaale woo dara nag booy sakku ci kër war nga xalaat ne maam duma ma yóbbu dara la may la ma fay la ma fa nar a am dama koy sakku ndax jigéen ñi seen royukaay moom gis nañ ko moom sunu maam soxna jaar kenn ku ne war na xool ci moom waaw ku ne war na xool ci kooku bu muy dem yóbbul dara te li fi li fi ëpp tey ci àdduna bi doon yaakaaru ëllëg moo ko fi indi muy sunu maam Cheikh Ahmadou Bamba kon jigéen ñi war nañoo xool ci kooku nga xam ne maanaam boo gis boo amee jëkkër dem sëy mooy li ci gën boo demee sëy nag la la fa fekk. bu dee nattu jàppal ne nattu la bu fekkee ne lu ñu mën a muñ la nga muñ ko bu fekkee lu ñu mënta muñ say waajur dinañ waxtaan say mbokk waxtaan say xarit waxtaan bu fekkee séparation am na nga xam ne sunu borom moo ko dogale noonu nga dem sakka juwaat leneen. waaw góor ñi moom takkatuñu góor ñi takkatuñ ndax bëgg nañ lu yomb bu ñu lay takkit dañ naan la deel def añ may def reer wala bu ma fayee ndox foyal courant te sama classe gi nekk ci naaj wi di wër suba ba ngoon. ku leen di takk dañuy bëgg nga génne leen ci waaye dañu bëgg lu leen ci dugal. jigéen ñi nangootuñoo sëy waaye nag euh, li tax nangootuñoo sëy moom war nañoo xoolaat seen bopp bu baax ndax euh, dañoo toll ci jamono joo xamante ni maanaam euh, yonante bi waxoon na ko ndax yim ci jëloon ne àdduna dina dem ba tollu foofu xam naa yim ci jëloon bëri na demoon na ba ñetti téeméer ak fanweer ak ñett yoo xamante ni maanaam limoon na ko waaye benn biñ ciy jël joxe ko comme misaal mooy bi mu aduna dina dem ba góor ñi nekk ci kaw garab jigéen ñi nekk suuf di leen doori xeer ngir ñu wàcc ñu ànd ak ñoom kon loolu boo xoolee baat bi Seydina Muhammad waxoon na foofu sallallahu alayhi wa dañoo toll ci jamono jooju ndax mu ne nii de un xool boo yoree téléphone fu mu ne nii nekk sa kër euh, jigéen ju xaw a zaayre bu bu bu dee jigéen ju xaw a zaayre ak góor gu xaw a zaayre ñooñu fu mu ne nii ñu ngi waxumal dara mais ñu ngi sëy ci téléphone bi te dara amut aduna yàqu aduna moo yàqu ndax jamono moom. bu changé da ngay changé ànd ak moom mais na nga changé jëm ci lu baax lu bon nga moytu ko waaye fu mu ne nii jigéen ñi moom lépp lu fi yàqu ci wàllum sëy mi ñoom ñoo ko yàq ndax fu mu ne nii kër gu tas boo demee coowul jigéen moo ko tas ngëru gu am problème boo demee bu ñu leen laajee ñoom ñaar la plupart ku jigéen ki mooy am jafe-jafe ku jigéen ki mooy am jafe-jafe kon loolu buñ ko seetee war a indiwaat seen xel yi war nañoo maanaam nangu li suñu borom dogal ci ñoom ñu xam ne bu ñu leen takkul bu góor ñi maam natt mu ñu yàlla teg bu góor ñi takkul kenn ku ne nga takk ñeent wala takk ñett jigéen duñu mës a wàññeeku ndax loolu suñu borom moo leen ko nattul kon dañoo war a nangu dogal borom waaw ndax yàlla moom mooy dogal to tubaab bi day naan c'est l'homme qui propose mais c'est Dieu qui dispose moom sabab la am may suñu borom moo yor dogalam te loolu la suñu borom dogal jigéen yi gën a bari kon faw ñu takk ay ñeent ak ñett ñu nangu muñ ak muñ sunu borom oyofal leen. jigéen ñi nangu nañoo sëy de dañoo gisut ku leen yor ñi nangu nañoo sëy dañoo gisut ku leen yor ku sañoon boo demee di sëy de ko ka ngay dem dalay yor nga toog fa kenn bëggut a dem di ñëwaat waaye ñoom ñoo yoratut kenn. lu bees li moom gan gi bu leen ci bu leen ci rombe rek pare nañ ci dañuy waat leneen ca mbedd ma. benn misaal rek nga xam ne maa moom da yegg nañ ci bi am na fi ay at waaw man de maa moom bi ñu fi nekkee ba léegi ay ñeneen ak ñeneen maam mënuñoo ne moom gisuñu ki leen takk am na ku leen taxawu ñii dañuy dàq de ñii dañuy dàqe ñii dañuy dàqe dañuy bokk lu yomb man fu mu ne nii si kanamam laa takkee aawo taawlu naa si kanamam bu am ñetti doom maa ngi ne bëgg ñaareel mu te te mu ngi nii su ma ko bëggoon takk mu bañ ak moroomam yëf yaa ngi noonu nañ xool dëgg ji di ko wax ah ah man moom xam nga ne Baye Fall de damaa war a bari njaboot war a bari ay soxna waaw ndax damaa bëgg a gën a liggéeyal Serigne Touba bu baax nag. te ci ñoom laa ko mën a jaarale bëgguma di xool sama soxna su ma soree sama soxna sama bët tegi ci keneen ma ci am maam lu ma lu ma neexut wala lu neexul suñu borom nañ xoolaat loolu bu baax kon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon dañ leen di gën a ñaanal ngeen gën fay yàgg ak wër suñu borom jëmale liggéey bi kanam ba suñu borom def ngeen installé ay télé yi télé télé ak i rajo yi rajo rajo Sénégal adduna gépp di leen dégg barke Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bëgg nanoo sëy de dañoo amul jëkk dañoo gisut ku ñu takk ndax ñii buñ la naree takk may la 1000 francs doxaan la moo la ko gënal moo leen ko gënal ke ñu xas takk ba yóbbu ko seen lijjanti lijjantitoon ko te ñun ñi nekk naa ju suba ba ngoon dañuy bëgg boo ñu takkee noppal ñu yóbbu ñu ca kër ga mënoo ñu caa yóbbu bàyyi ñu ci naaju kon ñu continuer wutuñu alal de ndax alal sayut bu dee xaalis moo tax ma topp la yàgg-yàgg dama lay bàyyi ndax yàlla mayul kenn chaque jour Ah, yàlla du dëkk ci di la may waaye du dëkk ci di la xañ kon bu dee xaalis moo tax ma topp la dama lay bàyyi dañuy jàppalante ak yërmaande waaye boo ma bëggee def jabare defal añ ma def reer fayal ndox ma fay courant loolu doxul